continuer di naqarul li nga du Sénégal mi a koy impacté terre depuis vous êtes témoin Taxi, y 4 quatre ans ñuy daw derrière sur suñu terrain quatre ans ñuy daw derrière le sec d'accompagnement social et de vulnérabilité pour vulnérabilité on avait estimé à ce que vulnérabilité 1000 euh, personnes dinañ ci donc lors d'une réunion ba nga

ñen ñi jël euh, tipo terrain ba légui fu may wax yow ni kenn gissagul terrain gisaguñu terrain non seulement gisaguñu guñu terrain mais gis nañ ñi ñi ngi doon distribuer ay acte administratifs ay acte ya nga xamni ni domaine moo ko distribuer won muy ces actes là jox ñu ko depuis presque boo leen lire fi depuis 2018 le 12 juillet 2018 ñu jox ñu ces actes là jox ñu ay plan de masse et tout ça

xalé yi ndaw yi jangatuñu amna ñi nga xam seen doom yi jangatuñu jigéen ñi sonnatuñu sonn nañ seen activité principale yi nga xamni commerce la kenn mënatul def commerce kenn mënatul def dara parce que fi nga dëkk fi nga dëkk fi ñu dëkk sori nañ mënatuñu def benn déplacement parce que enclavement. lu ñu fas def dans les jours à venir duñ ko duñ ko dévoiler sax dañ leen di bett ñun lu ñu fas def moy dañ leen di bett di def suñu action nak répétitive ce qu'on laisse nos vies. Damane, l'Union le Code Rouge. Il avait dit qu'il ne veut pas voir du rouge. Mais nous avons brandi sur rouge parce que le rouge nous avons nous derrière. Et, il faut que nous artu l'opinion nationale et internationale pour tay ji nous nañ ko pour nous. Wallah, nous ñu un témoin même les journalistes vont nous prendre en, en témoin parce que da fait fekkee tout au début ba instant bii ñuy wax ak yéen dañoo nas ba pare teg réunion ñi nekk ci salle yëpp am na lu ñu nas teg te lu ñu nas teg loolu du am sens buñ ko génnee léegi il faut que Sénégal yëpp gis ko lu kenn musul def Sénégal la def le blocage c'est au niveau de de Macky Sall c'est le président de la République moom lañ jox suñu institution moom lañ jox des... Maman moo à ce que ces gens-là mën exécuter l'Union c'est Macky Sall encore qui est notre interlocuteur que nous interpellons encore c'est la énième fois ñuy York. ces vieux-là ils sont fatigués il faut pas c'est parce que dañoo des banlieue combien de projets moo fait Elle est le BRT Regardez wuñu leen joxuñu leen titre et nous c'est nous ñun ñoo fi des BRT C'est l'ordre dinañ ko faire, ba dinañ par la force